كما بالغاب والمقتدر معسو من الأنعاء الخضر نفى لخير جيت ما ساء كاب كواني كل ما أساء فردت خير الخلق تفريا يدوم إني لأوخل ويبد وخديم يسر لي خليل ما تأثر على سوى لي ودا فسر الكرم يا الكريم والمكرم وخاض لي بشكري المكرم وأوتي مساني كالكدي والتارك مع سكوني بسم الله يكفيني أدار يا الله صلي بقاء بفيق يا الله يا من لو والأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a safoo chaîne bu bii di académie Minane TV ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar waaye nag jël nuyoo bi ak ziar bi jiital ko ci ki nga xam ne mooy xalif général des mourides Serigne Mountakha Bachir ah, di ko ñaanal mu yàgg fi lool te mu ak wér ah, dal leen ak jàmm ci seen reportage du jour comme nañ ko baaxoo di defee saa ne tey ji nag ñu fas yéene ak yéen ah, oto yu nga xam ne ñoo ñëw ci dëkk bu sell bii di Touba ñu koy wax oto yu ko wax taxi blanc yi waaye ci mën am danañ ci ànd nga xam ne ñoo jiite yooyu la oto waaye danañ ci ànd ak nga xam ne ñooy chauffeur si ñi nga xam ne Euh, ñooy clients yi nga xam ne ñoo ciy dugg waaye fas yéene waxtaan ak ñoom euh, ci fan dem tarif yi ñaata la oto yi ñaata yi ngeen a xam ne ngeen ko ci xam incha allah rabbi ak seen bu mag bii di académie Minane TV euh, du ma ci wet benn yoon ci ànd ak Serigne mi nga xam ne moo ci caméra bi incha allah rabbi léegi doon. waaw ah, chauffeur laa mm. mm. boo jëmee jumaa ja yi du garage bees 150 la bu fekkee ne ancien garage nga la bu fekkee xayra nga jëm tamit 150 la dugg bu bees bi mm. waaw loolu mooy mooy tarif ñaari fi nombre de nombre de plat bi sept la ak chauffeur muy huit amul ay surcharge ak yooyu noonu non non non non amul surcharge amul jël bagage transport bi moom macha allah macha allah oto yi wax dëgg yàlla yem nañu clients yi bëgg nañ ko dégg nga ligne bi ñuy daw itam allah baax na. clients yi xaw a am cofeel ci oto yi nag nga gisee waaw mais xam nga rek loolu cofeel googu ñun chauffeur ñun ñoo ko mën a téye quoi mhm. waaw bu fekkee doo xuloo clients yi dégg nga doo bu boo leen bu fi ñu ma nga wàcce leen fa yaa ngi dégg doo jotee ñoom daal dañuy gën a bëgg oto yi rek waaw di ñaan yàlla oto yi gën a bëri moom yar ak teggil la waaw respect parce que moo leen moo leen may lépp daal parce que client moom moomoo ko soo ko respect boo léegi boo neex du dugg jotaam du dugg soto waaw lool lool lool moom suñu njaate wax nañu ko moom wax dëgg yàlla takk der yi moom sonaluñ ñu takk yi sonaluñ ñu suñu njaate gi sonaluñ ñu yaa ngi dégg ñun daal euh, Mbàkke Tubaay ñoo xaw am tuuti lu ñuy siis waaw te ñoom dañoo xamul ne oto moom oto la rek kenn ku ne day xëy jël wërsëgam oto yi nekkuñu fi woon ñun ñun peut-être sax doon nañ dawal ci Mbàkke Tubaay yaa ngi dégg noonu àddina mën nay dox ba oto yi yokk ba ñoom ñu ñëw di dawal ci oto yi waaw tout tranquille méttiwul de waaw xam nga ñëpp tamit yemuñu mm-hmm. waaw parfois gis ñu la xatal parfois doo gis ñu la xatal mm-hmm. waaw ndax ñëpp moom yemuñu da gis ñu la may na gis ñu lu may mm-hmm. mais kam ko ñu ñëwee oto yu bees rek nañuy def ndànk rek dal ndànk dal ndànk rek waaw waaw ah, neex ñu rek heure bu ñu wàcc ci la ñu dugg ñu amul xat-xat loolu amul dara am commencé léegi neex na si ñun moom ci la ñu dugg bu ñu wàcc ñu bu ñu xëy bu ñu ko gisee ci la ñu dugg assuré ah, suñu moom du dara yi déedéet beneen niñ koy defee noonu baax na mi ngi mel ne nga yor sa oto yow kese. ah mooy loolu jar na ko kon baax na. ci hmm. gisee léegi de. jàmm ak rek lépp bu lépp defee noonu daal suñu borom gën a def jàmm rek. Hmm. ba ñoom nit xool ni ñu dawee ak niñ fi nekkee ak niñ fiy góor gën a góorgóor lu baax. wajatukal yawma ya ramanu muntajiyan دنياك يا الله أنت لي مراسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت لي مراسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا lay nuyu di la ziar tur bi ak sant bi ak euh, ci la ngay yëngu asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen dalal man la bu Ndiaye trésorier général bu comité de gestion des taxis verts blancs ci présidence su Khadim Gueye moom mooy président bi maa ngi leen di nuyu si turam man trésorier général taxi yi euh, verbalin yooyu nga wax ñu koy euh, tuddee euh, oto yu bees yi fii ci dëkk bu sell bi ji Touba ndax am na beneen tur bu wuteeg boobu ndax léeg-léegi ñu nemmee fii leen tur ay Mbàkke ay Njaga Njaay ndax yéen am ngeen ci tur yooyu benn. non non ñun moom taxi taxi vert blanc lañ ko tuddee parce que si papier itam loolu lañ si def taxi vert blanc moom lañ def si kayit yi. seen nombre de oto yi fii ci dëkk bu sell bi ji ñaata la. waaw fi mu nekk nii pour le moment nii effectif bi fi nekk vingt cinq véhicules la. 25 véhicules. waaw est-ce que gis ngeen ne loolu doy na ci dëkk bi. non doyul mais lépp nag tout début dina xaw a difficile tuuti benn début la rek mais parce que oto yi mi ngi si programme mu yaakaar naa 200 si at ci 2021 bi. Mm-hmm. objectif bi daal 200 la si 2021 bi. Mm. mais nag 25 yi moom moo commencé dérouler pour l'instant mm-hmm. ñoo ngi xool nag naka la liggéey bi di amélioré ba nu yokk oto yi tamit aussi. Mm-hmm. bëgg nañu xam ci yan secteur nga di dem li ñi maanaam. waaw lii ñi moom waa CETUD bi ñu fi ñëwee ñoom ñu yor ñoom ñu yor transport urbain ci Sénégal gépp mhm. bi ñëwee natt nañ fi huit lignes mhm. yoo xam ne oto yi mën nañ fi daw mhm. mais fi mu nekk nii nii moom trois lignes moo nekk en parce que amaguñu ay oto yi amagul quoi ci vingt cinq oto yi moom lañ répartir dans trois lignes diggante garage bu bees bi ak jumaa ja mooy ligne 1 bi beneen ligne bi tam am na diggante hôpital jannatu ak ancien garage. Mhm. am na aussi hôpital Ndiaye ancien garage police. Mhm. boobu tamit am na trois ligne yooyu daal moo nekk gun en cours pour l'instant. Mhm. lignes yooyu euh, ci xayma euh, ci ñaata ngeen ngeen ngeen natt tarif yooyu ci ci ci pass bi maanaam. non tarif yi moom tarif yi yomb la. parce que tamit dañoo ñëw pour dimbale askan wi tarif yi cent cent cinquante la. cent franc cent cinquante la. premier étape bi cent franc deuxième étape bi cent cinquante. tarif yi moom ci ñaar ci ñetti lignes yi muy daw yëpp rombul loolu. tarif bi cent franc cent cinquante. Mhm. romb ko. Mhm. bëgg nañoo xam maanaam ñan ñoo fi indi oto yi maanaam ñan ñoo ko mettre en place ci dëkk bu sell bi ci Touba. oto yi moom transporteurs yi ñoom lañ ko fi indil banque benn mutuelle moom moo ko financé mais moom tamit daf kaa lebal transporteurs yi rek ñu liggéey fay ko mhm. moom mais oto yi moom waa dëkk bi ñoom lañ ko fi indil. ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci transport si dëkk bi ñoom lañ fi indil oto yi ndax man mii transpo laa bu nekk si gare routière bi. am fi ay oto te am naa si oto. man mhm. nag oto yi moom transporteurs yi lañ ko fi indil mhm. waaw. lan moo waral seen seenu nekkuwaay ci dëkk bu sell bi di Touba ndax da ngeen ñëw ngir yaatal secteur transport bi wala gën a yombal transport bi wala. ñëw bi moom ñëw na oto yi moom ñun bëgg nañ ko ci ñaari objectif mhm. parce que bëgg nañ mu taaral dëkk bi ndax Touba dëkk bu mag bu màgg la dëkk bu sell la buñ sañoon képp koo xam ne gan nga fi nga ñëw parce que Touba naa dem ba nekk ville touristique mën naa ñëw ñuy def tourisme religieuse yëpp mën nañ fi ñëw léegi nag soo ñëwee si dëkk bi tam nekk fi gan war ngaa mën a gis dëkk bi mu taaru te oto yi buñ bëree si dëkk bi ñu wàññi yeneen oto yu xam nga rek na ma yàlla baal yu melul ni mu war a mel oto yëpp ànd rafet loolu tamit dina taaral dëkk bi si benn objectif beneen bi tamit mooy pour contribuer si transport parce que Touba koo xam am na xam ne am nañ difficulté transport oto yi lépp doyul léegi bon nag ñaari contribution yooyu tax na oto yi dugg fi bëgg ñëw nañ fi benn bi pour taaral dëkk bi ñëw nañ fi itam pour dolli transport bi pour nit ñi am jàmm daal. ba xatu leen ci seen nekk nekkuwaay ci dëkk bu sell bi di Touba moo xam takk der yi saw sonal leen wala yeneen secteur transport yi nga xam ne fekk ngeen leen fi ba xatuluñ leen. non takk der yi moom sonaluñu ñoo ngi leen di remercier de passage parce que oto yi bi ñëwee dañoo oto yu valable. am carte ñu fay leen assurance un mhm. moom bu amee pièce yaakaar naa takk der moom amatul lu mu koy xatale wala lu mu koy sonale yenn infraction yi leen di jàppee tamit chauffeur yi ñoom ñoo parce que des fois takk der bi jàpp ko si tëjoo sa bunt bi te loolu tamit sécurité chauffeur bi la ak sécurité client yi parce que oto bi comme sept personnes rek lay yëpp soo yewee ba fees war ngaa mën a tëj sa bunt daal sa oto dem à part loolu moom amaguñu benn problème ak takk der yi ñoo ngi leen di sant tam di leen gërëm daal ndax amun ñoo benn jafe-jafe ndax tey nañ am nañ pièce complet ñu leen assurance un an ndax ngeen gisee kon euh, d'après li ñu fi wax ni lépp clients yi naka ngeen leen gisee ndax am nañ satisfaction ci oto yi wala. non clients yi moom lenn kese kese la ñuy jàmbat mooy oto yu néew. Mhm. clients yi moom wax dëgg yàlla am nañ satisfaction torop si yi. Mhm. ndax client moom su wàccee si oto di ñaan rek xam nga ne am na am na mbégte te ak clients yi si dugg ñëpp ku si wàcc yaa ngi ñaan ak sant lii li ko fi indi yàlla na jëm kanam. Mhm. clients yi moom benn revendication kese lañ am mooy oto yu néew. ndax nee nañ oto yi daal bëgg nañ mu gën a yaatu ba dem si yeneen secteur yëpp ba lii ñi nga xam ne seetu natt na ko yëpp ñoom ay oto yu ñu fa dugal loolu moom mooy uh, clients yi loo xam ne moom lañ siy jàmbat wala lu ñuy lu ñuy lu ñuy lim mais wax dëgg yàlla si oto yi moom amuñu si benn problème parce que oto yi confortable nañ gaaw nañ waaw kon nag loolu moom clients yi am nañ satisfaction bu baax a baax. ñi ngi déglee léegi ñu naan oto yi ay gaz la ñuy dawee wala loolu bëgg nañ ci amee leeral. waaw oto bi gaz lay dawee ak essence mais loolu moom àdduna bépp moo fi am. loolu moom xanaa xëy na dafa egseegul fii mais boo seetee réew yëpp oto yi lool la ñuy dawee léegi parce que boo xoolee oto yi gaz la ñuy dawee ak essence loolu moom xëy na day doog a commencé fii rek mais du lu bees daal ndax oto buy dawee gaz moom yaatu na fi Dakar am na ak taxi yoo xam ne ay at at ñoo ngi fa nekk di taxi te gaz la ñuy dawee ba nag loolu moom xëy na day day lu bees fii si dëkk bi mais nekkul lu bees si àdduna bi waaw. lan ngay jamono ji. ñoo leen di sant leen gërëm ci teewaay bi ngeen teew fii. di leen ñaanal tamit seen site bi mu jëm ci kanam ci barke sëñ Tuubaa Cheikh ñoo leen sant gërëm di wax client yi tamit oto moom ñoo ngi fi dëkk bi ñoo tax ñu andi ko fi waa dëkk bi ñoo siy dugg ñoo siy voyage di ñaax tamit chauffeur yi ñu ànd ak yar ànd ak teggin ba li nga xamante ne nii innovation la mu nekk innovation si lépp si comportement si dawalin si yar lépp daal nekk innovation bu bees ñu koy xool si oto yi daal ñoo leen sant bu baax leen gërëm. jërëjëf. jërë ngeen jëf mbokk yi te lii la ñuy woon andil leen ko mu nekkoon seen reportage du jour euh, demoon ci ñi nga xam ne ñooy euh, oto yu bees yi nga xam ne ñu nekk ci dëkk bu sell bii di Touba euh, ñu koy wax taxi blanc nga xam ne noonu la ko seen trésorier bi waxee ki nga xam ne mooy trésorier bi moom lañ doon seqal waxtaan bu am solo boobee waaye àndoon nañ ñi nga xam ne ñooy chauffeur si ànd ci ak clients yi li nga xam ne noonu ne nañu ko waxee mu nekkoon lu am solo loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko gisanoo jaajëfal leen ci bu baax a baax waaye jaajëfal Serigne Mountakha Ba mi nga xam ne moo farale bi ak ñi nga xam ne ñoom lay àndal ci technique bi ba lépp di yemb jox leen di daje ba beneen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wal qalami wa ma yasturuun mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbind bi dina door benn fan ci weeru janvier 2021 a jeex fan weeri fan ak benn ci weeru bi nag mooy concours zonal bi ñuy am amal jagleel ko région yi di Matam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jeetu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. anta bi ni'mati rabbika bi majnuun. kamaa bi al-ghaadi wal-muqtadiri maasuun min al-an'aami al-xadri المصطفى لخير جهة ما ساء كافٍ كوان كل ما أساء فردت خير الخلق تفريا يدوم إني لأوخل ويمر وخديم يسر لي خدير ما تأثر على سوى لي ودا فسر كرمني الكريم والمكرم وخاذلي بشكري المكرم وأوتي مساني كالكدي واجعل تاركي مع سكوني